asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéenay safoo chaîne bi di Buzz Actu 221 moom ku tedd kii di sëtu seexul xadim daal dina àddu waaye ñu ngi sàkku baax ngeen abonné aimé partage commentaire like ndax saa su ne loolu li nga nekk dina nekk li baax lu ñuy dimbali tey ki nga xam ni moo di sëtu sëñ Tuubaa bi la di wuyu turu Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni di fi nga xam ni moo yor parti bi la wala kat bokk ci ñi nga xam ni tey jii bu taxaw bu baax a baax ci même réew di Sénégal waaye muy part de la vérité bu baax moom nag Cheikh Ahmadou Kara jamono gi ñuy waxee ak yéen àdduna bu baax a baax ci ginnaaw bi nga xamee teg nañ leen ci ay taalibeem loxo xam ne moo di Ismaïla Madior Fall mi nga xam ni moo gàlloo wàllum justice ci mi réew mi réew maanaam ministre de la justice nekku kat mi nga xam ni Ismaïla Madior Fall maa ngi lay xamal lenn sama ndaw yi nga téye ba ba léegi àttewoo leen waxoo leen dara ba ba léegi dafa war a dagg lenn nag may am mooy fexe man ma fekk ji leen ci prison bi la wala ñoom ñi la ñu fekk si ma maanaam nga àttal leen ku su ko defee loolee mu nekk li nga xam ni mooy yoon ndax kat téye leen ba leen benn yoon rafetlu ma ko ci loolee sax dañuy déglu kàddu yi nga xam ni Cheikh Modou Kara yëkkati na ko adressé ni Ismaïla Madior Fall daal di ñëwaat. awaadanillahu min acheytaani waxadi li manaafial awtaat sama gaañ ñi ci kaso bi bëgg naa ñu àtte leen mbaa bu ñu bëggee man ma waajal fekki leen ndax itam ay wéttal lañu man namm naa leen te ñoom it namm nañu ma kon mbir yi nag du neen Ismaïla Madior yow yow laay waxal ndem yaay wazir bi yaay ki ma war a waxal nañu leen àtte nañu leen àtte ni ngi leen atte ndax jéggi na dayoo dëgg la ku ñu tooñ am nga droit fayu waaye dangeen leen a tooññar bi yéen a may dégg waaw dëgg nag bu jotee da ngeen di nangu dëgg fii laa ci yem duma ci sori dangeen ngeen baal ma président bi yow nag ngay jéggal ma lu ëpp tuuru daal waxin wi du samay wax waaye ku yore gaal ak loo ca faw dangay jax wa fi amani la ginnaaw kàddu yi nga xam ni ni ngeen ko déggee moom Cheikh Modou Kara Mbacké addu jëmale ci ki nga xam ni moo di ministre bi gàlloo ci wàllum justice maanaam Ismaïla Madior Fall tey jii moom message bi daf kaa jegleel ci lu ay waxtu yi nga xam ni loolee la xamal bu baax a baax mu nekk mbir bi nga xam ni ab njiit nii da lay doxalee fexe la tuuti xool ay naataangoom ak i nawleem ak ñi nga xam ni ñoo di taalibeem ak i surgaam fees saa su ne su nekkee ci bànneex mu taxawu leen waaye noonee su nekkee ci nakar mu taxawu leen bu baax a baax te jii ki nga xam ni moo di Cheikh Ahmadou Kara Mbacké nooree ni ni sëtu Seexul Xadim bu tëdd bi léeg kàddu yi lékkati ak i kàddu yu rafet yi nga xam ni jëmale na ko bu baax a baax ci ki nga xam ni moo di Ismaïla Madior Fall génneel samay ndaw mbaa a ñëw fekk ji leen foofe ndax kat prison bi ak wéetal kese la wéy leen di abonné fi nga xam ni moo di Buzz Actu 221 ndax li fiy xibaar information ki jàngal ñu ne kii indil salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh